Prodac dossier la boo xam ne ay bakkan faatu na ci mambay ngi nii xam mi ngeen xar kanam gii ba muy saisir kër Ousmane Sonko ak ay biem ak alal ju bari ja Assane so Assane Mesere mii moo tippé woon garde corps Ousmane Sonko yi mambay nag ci Prodac googu ñu ni dossier ba moom ginnaaw bi mu ne mër coordinateur bi moom jàpp nañ ko déglu nañ ko waaye dañ faa gisug caay-caay goo xam ne Assane li ma la ci mën a jox lu tolloog ci un milliard un milliard trois cent wax naa ko léegi document yi nga xam ne moom la ñu créé loolu maanaam ay faux document la mm-hmm. yi ñu créé loolu yi ñu ni deux cent millions yoo xam ne itamit daal jox nañu ko rakk Souleymane Jules Diop luye fa itamit ñaari wata yoo xam ne ñu ngi ko luyee trente sept million jox ko DG bi DG bi def naa Modou mooy Moustapha mini ministre bi Abdoulaye Diop moom lañ ko jox léegi nag lii bokk na ci rek li nga xam ne jàpp nañ ci ñaari nit mm-hmm. kenn ki nag moom da dafa feebar la xam wax jàpp nañ ci ñaar mm-hmm. Euh, Prodac nag maam Baye ci gën a siiw lii bokk na ci daal caay-caay goo xam ni. Hmm. génn gum na ci dossier Prodac bi. Hmm. waaw. waa am na solo. waaw nga baal maat maam Baye mii lu tax mënaguñ koo jàpp même bu fi nekkoon lu tax mënuñu koo tëj. Hmm. parce que fii ak haute cour de justice taxawagul ci réew mi amuñu majorité mu taxaw. genre mamba yi ak ñi nekkoon ministre ci jamono yooju duñ leen mën a arrêté. faaw ñun faw ñu am majorité taxawal haute cour de justice pour mën waaw loolu de bu fekkee noonu la demee kon ñooñu nga xamee jàpp nañ leen ñaari ñooñu ban pour man kon dañ leen di bàyyi. ay ci ñëwal. bu fekkee si ministère foo ko teg mooy ndeyu mbi liggéey. Hmm? mooy ndey mbi liggéey. mais loi bi ministre la ko. non non ministre la mais ministre lañ dénkoon. waaye mais Assane man loi laa la wax de. non loi laay wax man mit de. ban loi moo wax li nga wax. ministre bi nga xamante ni moo yore loolu moom lañ dénk moom moo jël ay nit teg leen fa. Hmm. bu ñu fa gisee ak njubadi ñu war a jàpp ministre bi ñu ne ko yow kon ministre bi yow yaa def njubadi gii waaye dafa am lu la sécurité waaye ñi nga doon liggéeyandool dañ leen di jàpp ndax ñoom mënoon nañoo dénoncé wala bañ mënoon nañoo bañ li nga leen di def loo dañ leen di jàpp tëj leen ci kaso bi loolu moom yoon doxewut noonu yoon noonu non non léegi wax lii nga wax mooy loi bu Sénégal bii article yi boo dem boo ko ubbee mën nga ko faa xam nga yow Assane débat benn ministère boo xamante ni am na di gu fa nekk. yow fi mu doon nii institution ngay waxal. institution laay waxal. kon waxal ak ñoom moo teg ko caméra amul benn booy dem. moo teg ko ko. amul benn ministère booy dem. <laughs> voilà ñu dénk ko nit. nit ko def fa ak njubadi gu rëy. Mm. ñu ne ko yow mii nga xamante yow lañ dénkoon def nga njubadi gu rëy. Mm. waaye dafa am la sécurité ba mënuñu laa téye. waaye nag ñi nga doon liggéeyal loolu ñi nga xam ne yaa leen doon sant ñuy def ñoo ñu dañ leen di jàpp dugal leen si kaso bi loolu mënut a amul benn loi bu si dikk. ah kon ñi nga xamante ni jàpp nañu leen muy ñaar ñi nga wax nañu xool lan lañ leen jàppe waaye du loo xamante ni Mame Mbaye ñaa ko def joxe hélas Assane Assane Assane xam nga boo duggee ci ministère da koy fekk dage bañ naan sax am na ci dage yoo xam ne ñoom it daw nañ léegi dage yi mën nay mën mën nay collecté yenn yenn dépenses yi te fekk ministre bi du ko yëg waaye ci ministère bi la xewee Ah, ministère bi kon moo mooy ndey mbili gi rek moom lañ ko dénk. ministère bi kay du nit ministère bi ab ab ab institut ab kii la. ab ab ah. maanaam ab ab mbir la maanaam aw doxalin la mooy ministère bi léegi boo nekkee ci biir ministère bi xamuñu état xamul ministère bi employé bi ni ci biir tey defuñu di la xam léegi ministère bi nag ki ko yilif bu fekkee ni mm-hmm. mooy ministre bi. te moom yëgu ko. léegi lan moo ci yoonu état balaa am accès si kooka dafa am accès si ministère bi ko dénk. kan état balaa am accès emploi bi day am accès si ndey mbili gi. mooy muy ki ñu ko dénk di membre. mais ministère yi am na lu jeexew des fois te ministre duñ ko yëg. non non non kuñ dénk moom yaa war di saytu sa kër boo gisee lu du yoon nga wàcce kooka comme nii nga xamante ni Cheikh Tidiane Dieye def na ko. Hmm. Cheikh Tidiane Dieye bi nga xamante ni kee def na dara na ni dañuy deesee la ministère nga waa may deesee laa dañu ko sama ministère nga nekk boo si defee lu du yoon dañ lay wàcc daal di koy wàcc moom Cheikh Tidiane Dieye. waaw léegi mën naa laa joxaat beneen jéggi. Hmm. keroog bañ koy jéggat jéggati muy wuy ji. Hmm. ministère ba mu nekkoon. Mhm. ministre ba yoonam nekku ci mais jéggi mi ñu jàppoon ni daa am lu mu def. Mhm. moom la ñuy coppet teg ko ci barab. waaw waaw. kon pour dëggalal li wax ministère ban la woon. ministère bi mu nekkoon. ban ministère la woon. ay wax jéggi xamoo ban ministère la nekkoon. non non mais jéggi xanaa ñëwul rek ñu teg ko fenn. ci ministère la nekkoon ko teg fañ ko teg jéggi ko jiite woon. bii nag da ngeen ni maam Mbaye ñaa ko jiite woon. d' accord jéggi euh, euh, mi microfinance la nekkoon. fi nga xam ne Alioune Dione moo ko jiite. waaw Alioune Dione ko jiite fi mu toll nii. yow Assane xanaa ministère yi xàmmeewu leen. xam naa yëpp léegi tax nga ma koy laaj. <laughs> bañ a laaj. <laughs> yëpp laa xam joxe hélas. d'accord ñëwal ci oto yi lu fi leer dara dafee léegi leer na naañ. oto yan. ñaari oto 37 millions. Hmm. la lañu lee jox ko ministre bi. ah waaw. loolu dara leen joxoon ab xaalis kay ni leen yéen ko moom leen lu ñu neex la ñu def. ab xaalis bu la ko nit jolee naan la lii fii la jëm lii fii la jëm lii fii la jëm boo si defee loo si wër def lii la siy fekk nga xam. mais jël xaalis rek di la jox topp politique bi di dem léegi lu la neex ngay def yow it taxawaalu rek. mais 37 milliards. Hmm? jëndul woon oto ñaari oto. déggoo ma la wax 37 millions. ma ne ñoom ñoo seen yoon nekkul si loolu. moo nga daal di jël sa sa million dem jënd oto ñoom lañ yemale ñoom moom lañ yemale woon. Ah, parce que moomuñu woon xaalis. waaw xaalis boobu moom moom te yaakaaru ni kenn dana si topp moom da ngay passer passeree rek. d'accord. Hmm. Ndiogou euh, Prodac de saa yu ñu ko tuddee xel yëpp dem ci Mame Mbaye ndax moo tax ñu xam ko mm-hmm. am na yu bëri yu mu weddi woon waaye ci biir Prodac bi ndekee am na caay-caay njubadi goo xam ni ci jàpp ko euh, ñaar ñi fa jot a jàpp mm-hmm. ci la feeñee muy ay mbir yoo xam daal am na fa waaye donte ne Mame Mbaye moom daw na waaw xam nga Assane li mu expliqué tamit euh, Assane yëf yi doxewul noonu de pareen saa yi mën nañ la teg ne la yaay ministre mais da nga fa fekk ñoo xamante ne bii ci administration bi lañ nekk dangay ànd ak ñoom liggéey ab équipe la boo xamante ni bii ñoo fay nekk boo xamante ni bii tey tamit dañu am loo xamante ni bii moo leen warloog réew mi. Mhm. seen liggéey. Mhm. loolu mooy administration. Mhm. muy doxee dafa am ñoo xamante ni bi nga defe ne tey jii bu ñu waxee ne ministre bi jógee na fi kii ñëw na nga defee ne bu demee. day fekk même équipe bi nga xamante ni bii moom la fa Mame yi doon liggéey ñoo xam ni yàgg nañu fa liggéey def nañu expérience nangami at. am nañu ay seede ci bërëb ya. Mm-hmm. moom la ñuy am kay ay administrateur ay fonctionnaire lañ yoo xamante ni ñoom ñoo fa nekk léegi nag yow boo toogee yàgg ministre bi ngeen di def seeni i mbir. Mm-hmm. loolu yéen ay def seeni i mbir. mais nekkul ni. Eh, kii la bu boobaa yow da ngay bokk ci complice yi faaw ñu saytu la. Mm-hmm. comprendre nga parce que dafa am loo xam ne yow waru la yow la warut comprendre nga ah, léegi dafa am yoo xam ne dañ ko gis loo xam ne bii yow def nga ko te waru la loolu yow sa mbiri bopp la parce que nekkul ni kële war naa mën a jaar ci yow pour mën koo def mm-hmm. dañ lay contrôler. nga def doon Ousmane Sonko bu demee fee ci administration nga def lu liggéey ak ñoo xamante ni bii ñoo Amadou Ba ñoo doon liggéey. ñoo doon mm-hmm. liggéey. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu mooy administration. bu yaakaar ni ab poste la boo xam ne ministère bi moo lay fay ne la eh, doxaleel nii wala defal na la defal na la da nga leen faa fekk. loolu mooy li nga xamante ni mooy mbir yi. comprendre non li muy wax luwaa la <laughs> Assane moom li muy wax luwaa man maa la wax loolu. <laughs> kañ laa ko wax. <laughs> waxu ko déggoo xalaat wala yow kon nekk woon ci bi. waxuma yow li ngay néew li ngay wax luwaa la. man la ban luwaa la nga ne ma luwaa xuma article lan. waxuma ko de. <laughs> waxoo ko. waxuma ko Babacar a ngi déglu. yaa ngi dégg. amul problème loolu yëpp daf lay wan rek. comme weddi nga ko rek baax na ñu dem. daf lay wan rek ne la euh, li ci neex ci mbiru Prodac mooy mbir mi nga xamante ni bii ñu bari jafandu woon nañ ci. Hmm. di wax ne. Ousmane Sonko li mu wax du dëgg. waaw. ñu ne parce que àtte nañ ko ñaata nit la ñaata yoon la nit am dëgg ñu àtte ko teg ko toor. Mhm. ci justice boo xamante ni daa doxul li mu war a doxal rek. te ñëpp gisoon nañ procès bi ni nga xamante ni bi noonu la demee woon. Mhm. maanaam procès bi topp nga benn dossier yaakaar ni mën nga cee xañ waa yi mënoo koo xañ nga ubbiwaat beneen procès. tey jii ana ki nga xamante ni ki moo ne woon moo am dëkk léegi moom lu ko teree ñëw bu fekkee ne moom dëggam gi dëgg la. waaw. war naa mën a ñëw parce que tey jii lépp dañ koy jël ne ko bàcc ci taabal ji. da nga dëgg de te yaa ne woon dëgg la ba damay nangu këram ak alalam. xam na ni nekkul ci dëgg moo ko tax a daw. lu mm-hmm. dëgg. sii te Ousmane Sonko même nga ubbi woon frontière loo ko mënoon a def it du daw. déedéet parce que xam na ni li muy wax lu am la. xam naa maxee naa leen génn leen gaaw ci am nañ gàcce mhm. comprendre mais juge bi ko àtte woon waaw juge bi ko àtte xam nga yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni bi moo tax gis nga pareen saay euh, nañuy nekk ci njub mooy li nga xam ni mooy li am ba pare osé ñu àttale nga ni kontaanuma dañ may àtte kontaanuma dañ may te nga non dafa njëkk wax ni kontaan waaw non après mu ñëw ni kontaanul moom du moom mooy kontaan wala mooy bañ a kontaan dafa dañ ko man pion la rek bu ñuy dox pion ba nag jóg naan non man kenn ma dox fii. nga wax ne mooy rapport bi maa may rapport bi. moom la. di laaj loo xamante ne bii lii am na mais xam nga ni waa ji du ko génne parce que bu ko génnee ngeen koy toppee. Mhm. comprendre. waaw dëgg xam nañ ko li ñuy wax am na waaye waru koo yor waru koo génne. Mhm. te dossier bi moo tee Ousmane Sonko nekk candidat. Mmh. comprendre mmh. dossier boo xamante moo lay wan ne la ñii fi ñu tolloon dafa garaaw quoi donc lii nga xamante ni bi moom la ñu gis nii ay mbir la yoo xamante ni bi rek ay mbir yu doy waar la mmh. kee moom am na temps wu daw waaye kii moom am temps rëcc moo tax it ñu téye ko d'accord waaw macha allah ah. li nga wax ci oto yi oto yi waaw xam nga oto xam nga pareen saa yi 37 millions 37 millions nga léegi ñaari 37 millions di nga wax dëgg mën naa jënd ñaari oto. waaw mën nga cee jënd ñaari oto. ba desal ci as lëf loo loo jëndee essence. mais léeg-léeg euh, dañ lay fal nga préféré louer. louer mais louer yi ngay louer boo deful ndànk tamit beneen kii la boo xam da koy jël ci loxo bi rek di ko yóbbu ci loxo bee. waaw maanaam yow yaay louer sa bopp. boo deful yaay louer sa bopp. waaw luye bi day gën kon créewaat yeneen kii yoo xamante ni bi ñeneen a ko yor foo xamante bii fii yow léegi da luye fii di kii fii léegi dañuy pasar pasare alal du réew mi rek du ñu seet li gën a économie ci état mais dañuy xool chaque jour maanaam dañuy kii ba noppi mais di wutaat yeneen prox ndollu di amaat ci mbir léegi nag lu mel noonu moo tax loolu yooyu moo bloqué réew mi asal hmm. réew mi bu demul fenn yooyu rek la du lenn lu du yooyu hmm. wóor na yàlla lu siy pexe. nga ni ñiy def lii bu ñu xamoon dañuy daanu nañ ko def est ce que ñii moo tax jël bi da leen a rëcc de. Ah. maanaam ñoom ñëpp dañ leen a gëmloo ne waa ji du dem. Ah, am na ku ni ci woon sax fi ak fii ak euh, vingt ans Ousmane Sonko du ma sa nekk candidat du éligible pour nekk candidat loolu moom loolu moom as yow moom xam nga ni loolu moom lu ñu lu ñu waxoon la. waa ba tënkal leen ko ñun ñëpp nañ ko dugal ko ci ay kii ak jox ko fi sax ay sëriñ. Hmm. ñu yàlla. waaw. maanaam c'est pour ñi gëm sëriñ yi sëriñu seen njalaxaan waaw ñi gëm sëriñ yooyu ñu jox ko ñoo xamante ne bi ñooy incarné loolu ñooñu di ko wax ñu toog daan ni Sonko du bokk bu ko defee am na ñoo xam ne ah, ah sëriñ jiw dégg naa ko mu ne hmm. ñi gëm politique chroniqueurs yi ñu jox ko ay chroniqueurs yenn yi ñu koy wax ñenn ñi politiciens yooyu ñi gëm yenn politiciens ñu jox ko ñenn ñi ñu koy wax ñooñu ñëpp nag àndandoo mu nekk benn wax boo xamante ne bi ñoom ñëpp ñoo yem la ñuy wax dëgg la yaa moo tax vraiment vraiment vraiment yëf yi fi li koy yeggale fii duy caaxaan de. Hmm. gars yi def nañ ci liñ ci war a def lépp nag def nañ ko ci façon manipuler bu ne def nañ ko. gis nga suñu borom di def. wallaay kon mi ngi noonu yetti wata ñaari wata yooyu ci 37 millions xam naa ne koo joxoon Assane mën na la cee indil jëndal juróomi wata. juróom benn juróom ñaar fukki oto. waaw fukki wata kay. fukki wata naa ko indi te yëpp. te boo xamee ku ko jox bon carburant boo xam ne mën na caa ay. waaw naa ko wax lii mën nañoo yàq de. Mm-hmm. tabarkàlla. nga raw golo si tool. waaye <laughs> yàq ay yàqkat yu mag a ngi fi jóge pourtant ci ci nga bokkoon de. Assane boo leen di xas day xam daal parce que ci nga bokkoon. <laughs> Ah? Ah, bokk si loo xamante ni man amul la benn njariñ <laughs> yaa say dee rek. ok dëgg